bu fekkee jomaay euh, kii moo wax Bougane patriote yee ngi ñuusanteeg moom ñuus si saf-saf te mi ngi koy teree nelaw man xam naa loolu metti na ko topp ko te mi ngi koy teree nelaw kon loolu rek doy na bu fekkee xaw ma lan kadeer tamit bu waxee waxi dofam bo patriote yi ñu ñu ngi koy ñuus ñu ngi ko mën a ñuusee te mu ngi saf ci moom di saf ci ay papam di saf ci ay yaayam boo leen gisee ni ñuy waxee ci télé doon di funki di di funki comme beñ a dugub di reesal nga xam ni ñi dañu mer seen xol yi dañuy bëgg sax génn lu ne seen xol yi parce que en duñu am parce que ni ngeen leen di def la donc loolu rek doy na doy na doy na misaal loolu rek doy na toroxal xeetu toroxal mooy mooy waa patriote yi Pastef fii ñu ngi taxaw di di teg ñoom ba mu saf sàpp c'est tout donc loolu soxlawul justice di ci dugg parce que bu ci duggee rek day day naxasal valeur justice day naxasal valeur justice je sais pas si je me fais comprendre benn yërim bu taxaw ci télé yi di fenn adduna bi yëpp xam ni yërim fenkat la adduna bi yow xam nañ ni Bougane dafa feebar psychologiquement donc bu saa yu génnee ñu defal ko vaar bu génnee fen ñu defal ko vaar donc yërim boo xoolee yërim yërim nekkul ci jàmm donc loolu rek doy na waaw loolu rek doy na ay délit d'opinion la ay délit d'opinion la kenn si ñoom saagul président bi article quatre-vingt amul kam topp bañ nañ ko ba ñoom duñu wax sax jomaay Sonko la ñuy wax teg mais waxul dëgg non dafa jur suufri chiffres yi mais loolu jarul tëj quoi quand <laughs> sama gars loolu Macky Sall ku mu ko fii ñu rayante ak moom waxul dëgg dafa mais yooyu loolu dama jaral tëj nit <laughs> gars loolu moom jarul tëj voilà dañoo dof rek bu ñu wéruñu magum jëmm yoru dëkk lu day ni dëkk état dem def wut seeni inspection d'état ñu dem def rapport indi lepp tek leen mu ñu def conférence de presse di wax ak askan ay dof yu taxawé né mais askan ñepp ñëpp ñu nit amna ay dof askan des fois kër am ay dof yu goor ak yu jigen papa ji buy woté tay ji né day waxtaan ak dëkk bi mais du wo dofi bo boo dofi dofi bu ñëw wax dof lañu wax ndem ci kër gi lañ bokk mais bu ñëw wax dof lañu wax bu papa ji ñëw né ay ah, njabot gi té mu bëgg a waxtaanee dof taxaw fé papa ji wax yooyu waaye waxoo dëgg waaye waaye waxoo dëgg non loolu mais waxul ak ñooñu xam na ni ñi dañoo dof malgré que dañu bokk ci famille mais dañoo dof wala ñii ay vingt-quatre lañ Sonko ñëw def conférence de presse di wax ak monde bi di wax français di wax ak monde bi di wax ak banque mondiale di wax ak FMI di wax ak sénégalais yi di wax ak euh, euh, partenaires yi di wax ak union européenne di wax ak ñëpp di làkk français ñëpp dégg ko dégg mu làkk wolof wax ak sénégalais yëpp benn buggaan jóg non waxul dëgg non kee naan la non c'est-à-dire li war a ko def parce que banque mondiale non FMI li def ñu tax ñu daw ñu ko ay dof lañ mais nit du ràngati dof ay dof lañ mais Sonko ban intérêt la am dajale Sénégal dajale monde bi ñëpp di ko seetaan muy wax français war a mën a di fen ci chiffre di nangam donc ci ngay xam ne ñii ñoo am problème xam ne buggaan dafa am problème gars yi tamit yéen xamu leen ni est-ce que xam ngeen nit yéen li ngeen foog ni yéen ku solu jekk rek wala am xaalis rek nit la sax waay dof yi dañuy am xaalis dof yi dañuy sangu Sénégal loolu moo jafe pour xàmmee dof ñëpp ay sangu ñëpp dof yi sangu rek taxaw sol seen yére nag bu ñu waxee nga xam ni kii dof la Sénégal gaawul nga ràññee dof yi dof yi tilim yi ñooñu dañuy xam ne tilim nañ mais Sénégal am na 30 pour cent de dof yi sangu ba set solu di génnee ci ay kër. buñu waxul nag doo ko xàmmee mais bu ñuy wax nga ne <laughs> dof dof dof dof mag a ngi nii international dof loolu loolu moo am na 30 pour cent de la population yoo xam ne ay dof la mais bu ñu waxee bu ñu waxee nga koy xam donc lu sérieux soo ko ñëw def def benn conférence wax français wax ak àdduna wax suñu ci dernier public yi wax ci gérance publique bi wax français wax wax wax wolof wax ak monde bi ñu koy déglu mais ku génn fi naan noo waxul dëgg non chiffre bi dëgg la sax da ngay gis ni ñu waxee sax nga xam ne waxi dof la bu du dëgg du dëgg wax ba ci biir explication bi sax ñu contredire sax même bu dee dëgg sax waru ko def mais mais foofu wane na kii wér parce que daf ne du dëgg développé du dëgg ba ci biir ne même bu dëgg la sax waru ko def ndax banque mondiale ndax effet bi ñooñ day tax ñu euh, ñu ñuy ragal mais <laughs> koko kooku il s'est contredit lui-même dëgg nit dëgg bu seetaan kooku day zappe day dem yoram bu nit la mais dof yi dañu toog ko seetaan dof ak dof dañuy waxtan dof ak nit mo am problème pour ñu waxtan mais dof ak dof dañuy waxtan sen sen waxtan nak day contradictoire dañuy wax wax di kii wax jaar gauche kay wax jaar droite ñu ñu mais dof ak dof dañuy waxtan nit ak nit dañuy waxtan légui nak dof yi am na dof yu du yu toog di seet di seet seetaan nit yi am na nit yi seetaan dof yi am na dof yi waxtaan ak dof yi loolu moom Sénégal état nag doxul émotion état doxul ci benn meru Mollah Morgun état doxul ci benn meru Lamine Djiba Lamine Djiba non nañ ko jàpp nañ ko tëj nañ ko doxul ci sa émotion état du émotion quoi est-ce que comprendre lu état état du émotion yow yow nit nga émotionnellement yow da ngay bëgg noonu nañ ko noq noonu nañ ko ñuus noonu nañ ko dugal ci kaso bi loolu yow la sa émotion la mooy lu yëg état il est loin de là on parle d'état man d'état démocrate démocratique souverain libre autonome ñu koy xeex xare ko ay année ay doomu aadama daanu ci loolu boo amee sa émotion yow bëgg kii nañ ko massacré nañ ko rajaxe loolu yow la parce que parce que tamit ku nekk ci ñun am nga dicta dictateur nga sénégalais yi quatre vingt dix neuf pour cent ay dictateur lañ quatre vingt dix bu ñu amee alal toroxal la bu ñu amee doole noq la toroxal la donc sénégalais et dictateur de nature le sénégalais est dictateur de nature ah xool lañ ci seen comportement yi ñoom ñëpp dañoo am ay troubles comportementaux dictatorial sénégalais c'est un dictateur de nature bu la bu la bu la bu la bu la gañee ci dëgg sax da lay toroxal ci dëgg bi même bu la mëne ci dëgg bi la lay toroxal ci dëgg bi ñuus na ko ci dëgg la lay wax ñuus na ko ci dëgg ñuus na ko ci dëgg même dëggam la ci ñuus moom dëgg bi du ko du la ko wax pour nga yew de do ci wara ñuus bu dee école bi dañ lay karawaase farek farek madame yëpp nga yoro karawas monsieur yëpp nga yoro ay yat parce que <laughs> ñu leen yaré yar bañ nañ ko bay yar fouet égal yar éducation égal yar donc peuple bi dañ leen yar ci ay fouet pour nous éduquer nous nous nous fouetter nous nous quoi non donc le sénégalais de nature est dictateur de nature dans son fort intérieur mais l'état <laughs> c'est pas personnel donc qui euh, wax wala qui wax non non non tu es émotionnel à part entier on te respecte et on respecte cette émotion mais état du L'État, état droit eta fi da nga nan fok Trump ken du japp ken du la japp da nga nan France da nga ni fok Nicolas Sarkozy wala fok nangam ken du la japp et cetera et cetera même bu démocratie tolowul quoi mais ñun ni ngi tambalé tabax démocratie donc ñu ñëw rek bëgg jor ben esprit mola këdd leen leen fausse commune ray leen leen daggate leen leen loolu loolu c'est mola mais bu Mola duggé nak yor yor état nag loolu c'est pas moolaa boobu daggatale leen këppatale leen daf leen ala la euh, euh, Samuel Doe non dort exister il faut savoir faire la part des choses donc Sonko ak Diomaye n'ont absolument rien à voir de tout ce qui s'est passé et de source sûre lu ma ci am lu leer naññi Sonko porte plainte Diomaye porte plainte ñom waxu ñu benn yoon ak Diomaye Sonko sax lañu waxal kon amul benn article bu leen top, Sonko la ñuy waxal ki wax ak Diomaye di saaga jomay ma nga ca kasso ba kok article 80 mun nako top article 80 mun nako top parce que kooku dafa saaga jomay mais ñi wax ñi ñepp son ko ñuy waxal amul ben article bu leen di topp moo bu ñuy démé justice ñepp ñepp la bàyyi dem seen yoon bu dee bugaan daf lay son ko la waxal waxuma ben yoon ak jomay jomaay sonko laa waxal ko gën son ko nangam amul article bu ko top muy protéger premier ministre bi pour japp doomu adamay lolu buñ ko défé jaayum doole la motax ñu bayiko mu dem yërim tam ba mu ñëwee nee na waxul ak jomaay amul article quatre-vingt bu koy topp amul article bu protéger premier ministre bi comme quoi que boo ko ne waxoo dëgg dañ lay jàpp fii nii ñun dañuy wax waxoo dëgg dañuy wax président waxoo dëgg sax fii ñun loolu mun nañ ko nangu foofu doo wax président waxoo dëgg ok mais fii dañuy wax Trump waxoo dëgg dañuy dañuy wax dañuy wax président français bi waxoo dëgg fii tey tey jii dañuy wax Macron waxoo dëgg etc etc dañuy wax fi ni fi suñu premier mi waxo deug te kenn du la jàpp kenn du la jàpp donc du senegal lañuy ne premier mi waxo deug ñu ne nañ ko dem japp lool motax Sonko ak Diomaye ñoom newuñu ci émotion bobu motax yeguñu man ma leen ko wax yeguñu li ma xam nañ li amna may aw dafuñu ci ben ben ben wote wuñ ci comme nuñ ma ko waxee sax dañ ko talu talluñu donc bu mu démé ci justice libéré nañ la et moi je dis alhamdoulillah parce que lolu genre euh xana ni gis nga buñu buñu buñu ñu bu dañuy continuer ni Sénégal day day day day dem ci baromètre dictat di di dictat dictateur. naa leen expliquer ben affaire gis nga touba bi nangou nañ lu ne sauf deuk yu ñuy ay journalistes loolu tubaab du ko nangu munul gëm ci adduna ne réew dina wooyee boppam dëkk bu démocrate wala bu démocratique di tëj ay journaliste loolu ay indice la ay indice de dictator de dictatorial la indice dictatorial la noté leen indice dictatorial la ci dëkk ñuy tëj ay journaliste indice dictatorial la tubaab du nangu loolu du ko accepté du banque mondiale du FMI du kenn du nangu ni dëkk nga taxaw ne sama dëkk dëkk bu démocrate la ñuy tëj ay journalistes dañ naan la c'est faux sa dëkk amul démocratie journaliste tala ngi ci kaso bi journaliste tala ngi ci kaso bi journaliste tala ci kaso bi ay indice la yoo xam ne tey boo ko nit bu ko jëloon sax tey di ko di wut réviser sax mun na dem jëli document yooyu indi ko teg mun na jël

bu ñu paree ci loolu bu ñu wax ci démocratie la ñu wax ah ci démocratie